الحق من ربكم إن نبينا رسول أحمد خدمه من لا يزال سمدا إن نبينا رسول أحمد خدمه من لا يزال سمدا للمصطفى ما لم يكن ولا يكن لغيره ممن له كن فيكون هذا النبي الله ما لا يعلم إلى الذي له له والقلم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi su ngeen déggee xasida yooyu xam ni jot nañu ndigal ci cheikh mouhamadul muntaka ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak kan sëriñ cheikh haalim jenn mi nga xam ni mooy xalifa cheikh isa jenn borom ñen nekk la gën ak sëriñ cheikh jenn mi nga xam ni mooy xalifab sëriñ Yuusu Jenn ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak waay waay ci kilifteefu kan ah soxna mam fàtti Mbakke bay faalu Cheikh Moustapha moom sëriñ Basiru ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ni ñoo nekk fii ci Tiwaawan ñu am nag mbégte ah di leen yëgal ak di leen fàttali nag bis bisu xasida ñu jàpp ko kañ يوم العصرة تم خريط بيتي سوبسي فان آه في تي تيوان تيوان مريد كرباي غورو سابي واي واي نك ني تي فاتليكو نك مريد صادق دي باي غورو آه نجابوتم نك تي كليفتي فو كان آه الحاج باتي ميغا خامني نك موي تاو باي غورو واي واي كان موي كوردوني بيس بي نك آه شيخ يوسف ميغا خامني نك موم لا نو فاي شيخ يوسف موم شيخ ساجن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 ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen ziar di Serigne Modou bu wax léegi muy bis boo xamante ni ñu ngi koy taxawal boobaak léegi yàgg na ñu war koo def bisu yawma asura bu ñu tam xaritee ba ci suba muy bis boo xam ne bisu ñaan la lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu kiñ koy defal di jëmm joo xamante ni eh, ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi. ñëpp xam nañ ko ci réew mi ci luñ ko xamee ci yoonu murit bëgg sëriñ Touba Mbacke ba mu jeex bëgg maam Cheikh Issa Diène tàggat ci waa këram ba ñëpp xam leen ci loolu mu wóotu fi ak njabootam taxawal ko fi ñu ngi ko yëgal ñëpp famille Ndiobène bépp li ko commencé ca saabi xoona ba ca tund woowa yëpp ak Tiwaawan ak fu mbooleem ku bokk ci famille bi fu mu mën di nekk ci réew mi rek ñu ngi la koy yëgal bu ñu tam xaritee ba ci suba ga yow ma asura bisu yow ma asura ci lañ koy def mu bis boo xamante ni bis bu baaxoo ñaan la ñu tànn ko fas yéene ko cee ñaanal yàlla na yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp di ziar mbokki jullit yëpp di mbokki jullit yëpp fu jullit mën a nekk rek yaa xam ab euh, njóob ga sant yaa xam noo mën a sant rek ñu ngi la ciy woo ni sàkku ñaan yow di ñaan yàlla yàlla yàlla nangu ñaan yëpp di ziar mbokk yëpp wa ma zalik alalahi bi asis wasalaamualeykum wa rahmatullah ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaaniirahim barke borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki julit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyu beeg ziar bi a Cheikh Muntaxa Mbàkke Basiru di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ko noonu lañ koy ñaanalee Sëriñ Seex Jenn suñu kilifa di suñu borom yàggal ko fi te ko xanaa leen fàttali bis bi nga xam ni moo nekk suñu kanam di bisub suñu waajur wi Sëriñ Góora Saabi Jóob Eh, ci ndigalu suñu kilifa yi Baye Moussa Diop Saabi soxna Soda Baye Fall ak Serigne Basiru Seen Baye Sidi Diop ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa te nekk ci dëkk bi yëpp ak réew mi yëpp ci seen i ndigal la ñuy wootee ñaan gi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu waajuru tedd bi eh, fas yéene ko def bis bu ñaanal ko ci ndéem desale tuñ ko ludul ak ñaan ci woo mbokki jullit ak mbokki taalibe yëpp fu waaye mën a nekk bu déggee suñu kàddu day mel ni mooy suñu woote ndax amatuñu lu dul ak ñaan ci moom te lott nañ ci lool di ñaan ñëpp ñëw jàppale ñu ci ñaan googu ngir niñ ko bëggee mu saf sapak ak alxuraan ak xasida ñu amee ko noonu barke borom Tuubaa ak xasida yi ñu ngi ciy woo mbokki jullit ak mbokki taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi mina mbokki jullit asalaamaaleykum mbokki taaliba yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci sang bi sant sëriñ Touba bu wér a wér a wér muy sëriñ Gora Sabi Diop ñu tàmbali kër sëriñ Touba gii mu def fa lu dul jeex du fay ci àddina ba kër yomal xiyam ba kër ñu dem àjjana lim ko jublu woon nag mooy bëgg sëriñ Touba nàmpatal ci njabootam sëriñ Sidi li may xam nga ci dara sëñ Assane li may wax xam nga ci dara yéen rakki sëñ Gora Samb ngeen. kon boog bu génnee àddina njabootam teew am Pastef bi ñu am di ko wooteel bis kooku alhamdulilahi rabbil alamin kooku bis bi ñëpp ci war a ñëw. soñ ñëpp nag di soñ suñu bopp te xam ne bis bi kenn ñëw fi yusu kenn ñëw fi ku fi ñëw sa bopp nga fi ñëwal bis boo xam si boo ñëwee. waxi sëñ Tuubaa rek ngay dégg xasida rek ngay dégg waxtaan rek ngay dégg ñu ngi woo waa Tiwaawan gépp nag commerçant foor ñëpp bàyyiwunu kenn bis boobu daal bu nu tam ba suba ga da ngi ñaan ci yàlla ngir yàlla na fi ñëpp teew ngir yàlla ci barke Serigne Touba ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mboolum yëpp wasalaam auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala julli yent bi sala julli si yent bi sallallahu alayhi wa sallam Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di jëlee ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fa yàgg lool te ànd ak wér ak njaboot Cheikh na Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gépp ñu bisu waajur wi xam ne ñun tey jii suñu suñu borom woowaatoon ni fan ngeen bëgg doo juddoo ñu ko fenn ku dul doomu bay doon doomu bàyyi góor saay bi ndax garaat la boo xam ne yaakaar naa ne garaat mun kaa jënd si kaw si suuf muy liggéey Sëñ Tuubaa ba ñëpp xam na si fi ku fi nit nekk sa waajur rek yaakaar naa ni doon doon taalibi Sëñ Tuubaa mooy mooy mooy mooy garaat bi dina kawe muy mooy mooy mooy mooy mooy pouvoir bi dina kawe si ko suuf pour mu kooku doon sa waajur ñun bu ñu amee waajur boo xam ni dañuy dañuy ku mu doon ñu ñu taalibi Sëñ Tuubaa ba ñëpp xam ko loolu mu ñëw tuddee feneen ful foofu bëgguñu beneen waajur bul boobu moo tax ñu ngi woo mbokki taalibe yëpp di woo ëxlu xidma gépp gi xam ni jàpp nañu ku jàpp ni daal Siré Diop wala njabootu Baye Góora japp nga ni am nga lenn lool koy defal muy muy mbekk ci ñom ñun na ni bisu suñu bisu bay bi moy moy bisu bi dina war pour nga defal ñuko ko. ñing ci wo mbokk tiani xamni Tiwaawan yi bi ñing ci si wa tiawon ci wo woo suñu mbokki taalibe yi woo suñu mbokk taalibe yi mbokk wo suñu mbokk bay Faal yi ak daara yi ak yépp rek ngir ñoo xamni bisu bisu burum ngeerum la kep ku ci tak nak bo bëggee ngeerum suñu bom ñoo la ko defal bàkkib suñu Tuubaa ma ngi tuub bu baax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barka borom Tuba. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yen mbok julli yi, mbok mbokki yi, ni ngeen ko déggee ci suñu kilifa yi, déggee ko ci suñu khalifa de Serigne pati Diop, déggee ko ci Serigne sire bi nga mo yor khitma euh ñi ngi wo wa ahlu khasida len wowal mam si isa jenn mi nga xamni yalla daf ko defal tawfiq ci wa ahlu khasida neena mi ngi wo ñep waaye ñi ngi wo kilifa diine yi nga xamni ño nek nekk Tiwaawan yëpp ginaaw bi nga xamanteni jiital nañ ci xalifab sëriñ Youssou Dieng di sëriñ Cheikh jenn jiital ci soxna Mame Faty Mbacké ñi ngi woo sëriñ Gédé Mbacké ñi ngi woo sëriñ Khadim Mbacké ñi ngi woo sëriñ Cheikh Ndiaye Nioro ñi ngi woo sëriñ Mouhamed Mbacké Touba Kër Bakar ñi ngi woo sëriñ Moustapha Bousso tuuba Kër Mëgëy ñi ngi woo soxna Mame Awa Mbacké moom Alaaji Baara ñi ngi woo soxna Aminta mbakke ñi ngi woo mbooleem kilifa diine yi nga xam ni ñoo nekk Tiwaawan xalifa sëriñ Cheikh Mourou Gueye sëriñ Moustapha Gueye ak mbooleem seen ñi nga xam ni ñooy kilifa diine yi moo xam murit la wala tijaan wala xaadi waral laayin waaye naka noonu la ñuy woowee jëwriñu daayira yëpp di woo seen mbooloo di ko jaar ci euh, fédération bi nga xam ne mooy Matlaboul Fawzeyni te Baye Abdou Karim Ndiaye jiite ko te mu amoon lool ci teewe ci annonce bi waaye yàlla dogal mu fekk ko Thiès kon ñu ngi woo ci turam euh, mbooleem seen daayira yi nga xam ni ñoo lëkkaloo euh, ci Matlaboul Fawzeyni di woo maanaam dëkk yi nga xam ne ñoo wër Tiwaawan yëpp kër mëgëy Makka eh, ba siinu xaali ndindi bawuñu fenn bawuñu kenn bawuñu ñenn ndax bis bii bisub alquran la bisub xasaayit la bis la boo xam ne bis bu ñu ñor la bis gënu koo ñor si ñun lu dul lu Tuuba ndax suñu waajur wii buñ dee buñu dee wax ay murit moom moo tax lu ñu luñu waay di xaymam ci suñu jëmm yi ba foog ni dara ci taali bi ngi ci nañu xam ni kenn def ko ci ko ci waajur wii ndax moo ñu ci jur nàmpatal ñu ci nargal ñu ci ba mënuñoo def leneen lu dul doonu ab taalibe kon nag bésam nga xam ne moom rek lañ ko desee ci kaw suuf ñu ngi ci koo xam ne suñu soppe nga képp koo xam ne tey jii boo déggoon ni kenn si njaboot Baye Gora Sarr na liggéey loo defoon di nga ko loo doon ko bàyyi ñëw ànd ak moom ñëw ñëw ci dëjëm na xam ne njaboot Baye Gora Sarr bi loolu defal ñëw leen seen bisu Baye bi moo leen gënal kon nag ñu ngi woo ci turu suñu mag aw jóob bi nga xam ni mooy taaw bu jigéen bi waaye ci turu sëñ parti bi nga xam ne mooy taaw bu góor bi waaye ci turu suñu rakk yëpp di leen xamal ni bis bii bisub xasaayat la bisub arxuraan la bis la boo xam ni dugg ci lu dul ku ñëw nga toog jublu penku di di def ak jaamu yàlla ku mën a jàng alxuraan jàng alxuraan ku mën a jàng xasida mu jàng ku ko mënul nga yor sa kuréel si def salaatu ala nabi bëgguñu kuy waxtaan bëgguñu kuy kuy kuy kuy def lenn loo xam ni tey jii ka nga xam ne moo tax moo tax ñu woote bis bi bu tey jii bu ca tegee bëtam du ko neex kon nag bis la boo xam ni bis bi nu ñor la ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp di ci woo mbokk taalibe yëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi bis ba xam ngeen ni daj nag ba dajatoo daj bay dajale ñak lo ko dajel waye ki ñi fàttaliku nak ah cheikhul khadim kep la gëmoon bay goro sa bi mourid sadiq buñ ko wotale bis nak waxuma tiwaawoon waye waxuma yoon wi waye mbollem kuy wax sadu wax asadu an laa ilaha allah rek bis bobu sa bis la waaye nag woo ak ci ndigalu kan waay waay Serigne Babacar Sy xali général di Tidiane xam ngeen ni Tiwaawan ah dafay dëkk boo xam ni nag ah dafay dëkku Cheikh Sidi Hadj Malick waaye bay góor a nag dafa amoon amoon ak ñëpp jàmm kon nag di woo ki nga xam ne nag bis bii kenn ëppale ko ci muy Serigne Mamour Sam moom Serigne ngeen ni Baye Sidi Diop di rakk ci bàyyi góor a moom it mi ngi nii toog waaye waaye soxna Aminta Mbakke mi taawu Serigne Daam Atta moom Cheikh Ibrahima moom itam ñu ngi koy woo ci bis ak soxna Mam Fati mi nga xam ni itam rakkam la di sëtub Cheikh Ibrahima moom Cheikh Ibrahima Dia moom it ñu ngi koy woo waaye waaye xam ngeen ni itam soxna su Mbakke sëtub Serigne Ahmadou Ndumbe moom ñu ngi koy woo waaye waaye nag xam ngeen ni nag buñ demee nag ba bisu tam xarit ci guddi ba ñu reer ba noppi vingt deux heures ah Sidi Fall la moom mooy ñëw nag bak Cheikh Ibrahima Fall waaye waaye nag bu ñu demee nag ba xëy ci yow mën a sura ba julli fajar six heures du matin ah daanu ubbee nag xasida googu nga xam ni muy matlabul fawzi fawzi ni ku ci joxewoon ndigal Cheikh Mudul Muntaqa ah Cheikh Youssou ne six heures daal Moustapha Ñang xasida mooy mooy jàng matlabul fawsayni nag ñu tàmbali programme waaye waay bu demee nag diiwaanu ah nuuru daarayni bu Cees ñoom itam ah dinañ fi ne ak di di jàng xasida waaye waaye ñoom itam muy xasida ak nuuru daarayni ñoom tam ñoo koy jiite waaye waaye buñ ca noppee nag ma mafatixul bichri nga xam ni xasida googu bu ñu ko tuddee rek ah xam ni nag mooy caabi mbégte daayira mafatixul bisiri ñoom itam ah jàng noonu lañ koy toppee nag ku jóg nag sa morom toog ba minuit waaye bis boobu nag bisu tudd yàlla rek la bisu alquran rek la bisu xasida rek la waaye bisu teewlu rek la waaye waaye bis la boo xam ne daal bu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ni woon tël kenn du sa du bis baa ngoog yow tam xarit ba ci bu ko kenn wute ah sëñ Moustapha Ndiaye sëñ Moustapha Ndiaye nag sikru la moom Cheikh Issa nag moo koy tëj nag bu ñu ko tëjee nag ñu ñaan yeewi ñëpp woo nañu ñëpp ñaan nañu ku ci ñëw nag Cheikh Issa nag sedd la ku mu sedd nag boo dëppee nag sedd say mbokk bis ba ngoog yow ma